Fefio foli combat bi dina yàgg bii combat man gisuma non man gisuma sax mu jeex léegi léegi mu jeex bii bii bii mun na jël suñu temps gisuma bii combat ah. warul jël trente minutes normalement nañ ko def dix rek ñu defee ko nii waaw man loolu laa gis ndax ñaar yi moom seen expérience du fi <laughs> ñii du fi doon jël Bugot ni ati tebera fofu cuga ati bogode subogi ayme ahangena gole cosane di smomo joge joge ni Bugot voilà joge ni Bugot Bugot Acabok. Seinela waay waay waay Diane tuuti na waay Dakar gaa ngi ci biir oyoyo Rambo oyoyo Rambo oyoyo Rambo Rambo agnam ati enadia epane anefan oyoyo agnam ati chukuja aha Rambo se